QGM conférence de presse bi pour waxtaan ci ñetti Pogne poñ bi ci njëkk mooy ne ñun ñëpp dañoo constater benn insécurité bu am ci dëkk bi bu jéggi dayoo insécurité boobu noonu gis nañ ne ay agression ay vol ay assassinat yoo xamante ne nii mi ngi daw ci internet bi nga xam ne xale yu ndaw yaa ngi koy gis mag ñaa ngi koy gis ay images yu choquantes mooy comme femme bi ñu rey ki negay wala it ki nga xamante ne moom moo di Omar Diop ñu reyee ko ci VDN bi mu it beneen infrastructure bu ñu tabax bu wuyuwul ci li ñuy xaar ci mbirum kaaraange parce que it tabac, infrastructure bu melni ni ay tali te amul yu ko sénégalais yi mënuñu fa kon mu ci yu ñuy ñaawlu waye ñu sétlu rek né ña nga def agression yoyé ay armes yu fasantiku la yor ñi ay bomb yu an gaz lacrymogène di xoj ñi yore ay paka, ay jasi, façon mais ci benn violence bu jéggi dayoo boo xam ne musuñ koo seetlu fii ci senegal muy nag li ko ci ëpp nag fii ci biir dakaar la mais mu doon loo xamante ne nii dafay wane lajj bi nga xamante ne nguuru Sénégal lajj na ko lajj bi nag li ko gën a jëmmal mooy bañ tabbee ca ministère de l'intérieur kii ñuy woowe Antoine Félix Diome moom daal wax dëgg fa yàlla bi mu ñëwee léegi dayo bi mu jël ak kattan bi mu jël énergie bi mu jël def ko ci uti ay matériel yi nga xamante ne nii pour aaye ay manifestation la mooy maanaam lu jëm ci ay dragon oto buy sotti ndox te yu policier yi di sol pour manifestation maanaam mbirum état policier lam ca mën ci investir ko ak ut ko ci ay jumtukaay

ci njàqare nërmeelu ci jafe-jafe nërmeelu ci ñàkk kaaraange ndax amuñu ku leen toppatoo amuñu ku leen wallu amuñu lu leen wuutu amuñu fenn fu ñu mën a dem lu dul ne jàkkaarloog ay samba ay defkat yoo xamante ne nii kuñ ci jàkkaarlool maanaam yàlla na la yàlla yërëm beneen bi mooy li gën a garaaw dañoo jàpp ne bokk na ci li jëmmal loolee jëmmal jafe-jafe yooyee poñ bi ci njëkk mooy Sénégal benn sénégalais ne à mesure wax ñu naka la ñuy defee grace présidentielle da xëy rek benn criminel boo xam ne ñëpp xam nañ ko wala def na lu ne ci dëkk bi rey na sax nit ñu gracier ko baal ko bàyyiwaat ko ci société bi mu ñëw kenn xamul ci ban critère lañ ko teg kenn wóolootul frontières yi mel ne caapa yaasin ku mu neex dugg nu mu la neex nga duggee amul benn contrôle Sénégal réewu teraanga la dëgg la naam waaye nañ saytu xool kanakan kuy dugg noo duggee ak fooy duggee beneen poñ bi bi ñu ci ëppal solo mooy ne ñun Y'en a jàpp naa ne askanu Sénégal lu ci ëpp dañoo sàkku Antoine Félix Diome ci boppam tekkil boppam ay ndomb tànkam parce que dafa lajj parce que dafa cuune bu ko deful Macky Sall ci bopam na jël ay responsabilité am wàcce ko ci poste bam ko tek parce que dafa fayir ministre de l'intérieur bo xamné bi nga ñëwé ci la réew mi gëna am insécurité té ya wara assurer la sécurité des citoyens et des biens moy wane ne yow mi da nga fayir Sénégal dañ fi constater hétum drogue bi gëna bon yamba ji daf ci gëna tar am yuñ xalé yi di jëfëndiko ci buntu école yi dañ koy jaay muy Jakarta sangare buy jar 300 francs ay jaaykatu cigarette ak sàngara jakarta ci buntu l'école yi lañu nekk soo génnee guddi gi nga gis lu ñuy wooyee volet suñu doom yaa ngi koy naan suñu frère yaa ngi koy naan muy ay ante amphétamine yoo xamante ne nii ñu ngi koy jëfandikoo ci dëkk bi mi ngi lore mu ngi lor askanu Sénégal lan mooy liggéeyu ministre de l'intérieur su dul ne yow munoo contrôler càmbar saytu li nga xamante ni mooy lor askanu Sénégal kon sàkku nañ ci moom. réew bu am fulla bu ne am développement bu ne yaakaar avancé bu ne buñ la tabbee ci poste bu toll ni ministre de l'intérieur soo matalul da ngay tekki sa ndomba tànk bàyyi nga xam ne mënuloo keneen ñëw boo ko deful kala fa tabb na jël responsabilité am tebbi la fa loolu ñu ngi koy wax sàkku nañ ko di wax que ne ñi ngi ñaan ñu renforcer takk der yi renforcer police bi may leen plus de doole ak plus d'équipement xoolaat sen salaire yi parce que taxaw ci tali di laaj ay ñaar deureum ak ñetti deureum salaire yu doyul moko indi kon buñ leen defaree li wowe yok yokk salaire parce que ñomit ay sénégalais lañ yag nañ fay dégg bu njëkkaan nek policier wala nek professeur da nga daan sawar ci nek ko parce que vocation la won mais jamono ji neexul salaire doyul amul ay avantage amul

jox leen policiers yi liggéey moyens yi ñu mun defee seen liggéey loolu exiger nañ ko beneen bi ci topp mooy ñii ñuy ASP mais renforcer l'en leen yokk leen seen statut yokkal leen seen salaire ñu doon ay honnêtes citoyens yu gagné s'en vie ngeen recruter l'en ci police bi defal l'en formation ba ca war pour ñu mun am une police de proximité Nam seetlu nañ juroomi fan yi amna ay jéego forum yaa ngi gis gendarmerie police takaw mais bu mu fa yam manque d'effectifs, bi li ko indi mooy ñàkk recruter parce que les les priorités de Macky Sall ak nguuram sont ailleurs que de que d'assurer la sécurité des citoyens C'est tamit qu'on nañ ko. ñi ngi sàkku tamit pour que police puisse faire def liggéeyam bu baax bàyyi leen leen ñu am syndicat il faut que police am syndicat parce que police bu amul syndicat pour mën revendiquer toog revendiquer ay jafe-jafeem kaasal boppam wax ñu jafe-jafe ñun ñu xam ko dégg ko savent addu loolu du sotti donc le seul mbir mu nga xamanteni ni du yoon police ne fi amul syndicat benen bi mooy États-Unis wala àdduna bi yëpp amul fii ku fi xamul lan mooy 911 911 àdduna bi yëpp xam nañ ko ab numéro boo xam ne la mi ngi tudd 911 911 États-Unis teg ko fa boo nekkee ci jafe-jafe boo ca wootee même boo coupé dañ lay woowaat foo munti nekk ñu fekk la fa. kon walaay walaay walaay Macky Sall xalaatal teg benn numéro boo xam ne sénégalais bu nekk ci jafe-jafe dana ca woote. parce que booy dox ci VDN 3 bii ñu tabax muy pont Limaamu Laay bi ci lëndëm amul làmp amul sécurité bu la ay samba booy dogalee kan ngay woo soo génnee téléphone ba ñoom jël nañ ko agressé nañ ko nangu nañ ko kon war nañ mën a def benn numéro raccourci bu yomb 111 la moo xam wala 000 la ba nga xamante ne citoyen bi dina ci mën a sikkandiku pour mën a woote wallu ci lu mu gën a gaaw te bu coupé ñu mun ko àdd wala fekk fa mu nekk localiser ko parce que am nañ matériel Macky am nga matériel boo saytoo topp ñu ñun ñii yenn saa yi nga toog événement war a am nga yëg ne yow ñu ngi lay topp ñu ngi lay déglu ñu ngi déglu politiciens yi ñu ngi déglu opposition bi kon bu baax am ngeen moyen yu ngeen surveiller am ngeen moyen yu ngeen toppee askan bi am ngeen moyen yu ngeen def moyen yooyu na ngeen jël def ko ci répression def ko ci toroxal ak xoqatal def leen ko ci protéger askan bi loolu lañ leen di saas beneen ba ca topp mooy ne dañ bëggum am benn commission bu bu ngeen teg buy saytu mbirum grâce naka lay demee parce que grâce yi nag saa doy na waar il faut que ñu saytu ko mbirum grâce commission boo xam ne maanaam kuréel bu ñu teg buy mën a saytu kan lañ war a gracier ak kan lañ warul gracier ba ca topp mooy ñi ngi ñaan askan yi ci gox goxaat yi dimbali police pour mu mun def liggéeyam bu Samba Boy bu leen ko parce que tamit la police c'est les populations population yi pour sa propre sécurité boo xamee Samba Boy wala defkat sa gox boole ko boole leen Samba Boy yi boole leen jaaykatu yàmba yi ci gox yi boole leen yeeg defkatu lu bon yi ci koñ parce que loolu tamit daf ci am solo

Nous abandonné ko wala fréquenté pont il faut que nous rendre ces ces endroits vivables viables pour que nous ñi Nous avons dem pont amul sécurité amul dara amul lampe kenn mënu fa dem guddi gi bo fa sabakan muñ ci kon leen ñaan ñi nga fal ci mairie récupérer ces endroits là def fa ay fleurs def fa ay lampes def fa askan ba nga xamantene ni def defkatu lu bon yi fàq maan duñ fa ci dem loolu bokku na ci sécurité waaye benen bi moy léral leen mbedd tal taal leen lampi mbedd li laay war a tal leen lampi mbedd ci gox yak goxadi yi moy tax sécurité mëna am ci mim réew kon nak pour jall ci bobu aspect ma dem ci benen poñ bi nga xamantene moy mbirum judiciarisation de du débat politique moy manam waxtanu mbedd sax légui Macky Sall fexe na daal ba nu mu ko ëlëmee ba yow boo toogee sa buntu kër sax waxtaan fa ci sa ban jaaxle mën na la ci tëj kaso waa léegi loolu lu ñu ndeyam nag ci mim réew ah te li ci gën a ñaaw waxoon nañ ne yoon a ngi jeng te constaté nañu ne justice bi dafa am bu kumba am ndey ak bu kumba amul ndey ndax kat xool ngeen yéen ñëpp réseaux sociaux yi li fi xew am na ñoo xam ne ñu ngi féetewoo ci côté Macky Sall suba ba di jot di ngi saga nit ñi di leen waxal yu ñaaw di leen xass di leen dénigrer dara du leen ci fekk waye yow bo andut ak Macky Sall ñeex mi amna na cere ji am ñeex ñu la xuus yobbu bëkk ci muju ñaar sax lay wax ñu ci muju muy gas Salvador fele ci ndar dañ koy jaay doole dañ koy jaay doole ba ñi ngi ni nar ko ci tëj juroom benn weer yoo xamante benn weer bi dana ko tëdd ci biir kaso bi waaye Cheikh Omar Diagne lan la wax lu keneen waxul lan la def lu keneen deful def na ci kaso bi 40 jours loolu lu ko ëpp bàyyi leen jàmbur bu mu génn jëm ngeen sax yàq deram ci biir di génne ay vidéo am kon justice bi dafa nekk justice boo xam ne dafay sooxee soo farul fii yat bi dal sa kaw soo faree fële yaa ngi yaataa yumbe kon ñu ngi exiger ñu libérer ñaari doomu Sénégal yooyu ñu dem doxi seeni soxla parce que jàpp bi leen jàpp teguñ ko ci dara lu dul ca seen coobare bopp ak ca la leen neex poñ bi ci mujj nag muy contentieux bi am ci laataa ñoo dégg ma élection yi dégg nañ ci lu ne ay liste yu am problème bii wala bële ay liste yu am jafe-jafe muy bii wala bële jafe-jafe yi nag bëri na ñu wax ci mbirum parité mooy maanaam jigéen ñi ak góor ñi ndax nañ ko defee limba am na ni mu war a amee ñeneen yeneen yi ñi ngi naan nombre yañ joxe ci ay parrainage de bëri c'est ce rek dafa ñuy Nous position depuis 2015 Nous taxaw parrainage parce que bañuñu parrainage encore une fois mais parrainage bi Macky Sall di def maquillage boobu lañu bañ bi nga acteurs d'accord ci amuñ ci consensus xamuñu tenants yeeg aboutissant yi daf ko teug ko pour mëna xokatal filtrer ñam élections ñun ànduñu ca xeex ko ak énergie bu ne ànd ceeg suñu yeneen ni nawle yoo xam ne ñi ngi ci société civile bi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir wàllum politique bi kon loole moo jur tey jii brouhaha mooy jafe-jafe bii lëndëm lëndëm bi ñu jis ci affaire liste yi waaye mouvement bu mel ne Y'en a marre comme askan bii fi ne nga xam ne dañuy taataan rek information yi autorités yi ci compétente waxaguñ ca dañu dégg ci liste yi borom list yi ñoom ñoo ci àddoogum ku ne ne sa morom deful lii wala deful lee ñi ngi wax nag conseil constitutionnel mu jël responsabilité am te wax dëgg ni ko suñu code électoral waxee kon xalaatuñu benn yoon mu am ay tappale mu am ay njuuj njaaj mu am ay puusum élection nañu respecter la calendrier républicain nañu daan ñi ñu war a daan ndax ñeneen ñi ñu daanul lañ def ba daanuñu leen dañ ko war a magnifier waaye na jël responsabilité am te bu mu ci indi ab parparloo kon